jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp 24actu point com ñoo am te lool tey jii nag ñu ngi fii ci Daaru Muxti ngir fekk si moo Modou Kara la ñu fa yéene wax ci mbir moo xam ne daanaka laal na umma islamique bi yëpp muy li nga xam ne moo xew ca nuwel zélande muy ay jullit yoo xam ne ci jàkka lañ leen fekk daal leen di massacrer euh, sëriñ bi ginnaaw bi ñu la nuyoo nuyoo bi gën a tedd euh, ma jox la nga nuyoo ñi nga xam ne ñoo lay seetaan ci 24actu ak euh, mbir yi loo ci wax. laa ci wax jullit yëpp dañ ko naqarlu ba noppi tiit ñaari yëf yooyu rek ñu jullit yi am même ñu dul jullit defe naa ne te nekk doomu aadama sax am nañ ci njàqare ba noppi tiit nañ ci rus nañ ci mm, mbirum yàlla la nag ndax lislaam moom ku ko bëgg a xeex yàlla ngay xeexal waaye nun niti lislaam yi nag dañ cee am warugar boo xam ne képp ku bëgg a xeex diine wala lislaam dañ caa war a jël sunuy matukaay ndax lislaam moom naka jekk day fay soo mu doole nag nga mettit lu ko yetti yetti naqar yooyu rek la lii moom loolu rek lañ ci mën nun lii moom lislaam lañ lañ tooñ te lislaam koo tooñ yàlla nga tooñ li metti nag ci àdduna bi mooy tey bu fekkoon lii ñeneen lañ ko def ñu bokkut ay jullit ñu nekkut ay jullit kon ba tey dégg nga ku ney wax waaye gis nga bi mu nekkee ci côté jullit yi moom déggoo kenn wax moo tax nit yi lislaam yi dañoo war a xam seen bopp war a war a fexe ba li Serigne tubaa doon jàngale ñu nekk ci Serigne Touba dafa waxoon ne jullit buñ fexe woon ba dajaloo ba nekk benn dafa doon nee na billaahi wallaahi tallaahi saa borom lu muy séddale ci yërmaaneem yi xéewale mi du leen fàtte ñu ne ko gan nekk benn mu ne xanaa waxante lu baax ak dimbalante ak yërëmante mm-hmm. waaye fondation bi mooy bu ñu fa bon sawara di ko jox jullit bu ne hmm. kenn ku ne day ñemee waat waat naa ci sawara wi li ma yéene saa bopp yéene naa ko ñu ma nekkal nee na bu tàmbaleewul bu baaxul mu ne waaye su fekkee jullit yi dañoo nekkul benn it hmm. lu saabaram di séddale ci alkandeem yeeg musibaam yi du leen fàtte hmm. te jullit yi dañoo dañoo xaw a desee nekk benn xam nga <laughs> lislaam moom ci wàllu état Afrique ah man ci sama gis-gisu bopp bu fekkee taxawu nañu ñi ngi koy taxawu des na ndax nit li ngay wane rek lañ mën a xam xam nga nit na kenn xamul xolo waaye su fekkee dañ lay xool mu am ñaari camp benn camp camp bi nga xam ne gëmoo ko yow nee nga jullit nga te benn camp bi nga xam ne nekkul jullit lu ca xew nga jóg taxaw naqarlu ko dem def say manifestation lu ne nga wax ko te yow sa côté moom lu la ci dal nga ne teel kooku day jaaxal nit ñi kenn du xam allahu yàlla yàlla rek moo xam waaye war naa mën a jaaxal nag képp koo xam ne am nga xel di xalaat war nga mën a jaaxal jaaxle ci loolu tey jii ku doon wax Arabie Saoudite ngay njëkk a ndax ñoom taxawaay bi war ci ay jullit ndax ñoom taxaw nañ foofu la problème yi tàmbale da xool rek tey jii bu euh, ñu nekkul ay jullit euh, tey bu fekkoon Italie ngay wax France Belgique Allemagne Amérique du ñu ay jullit waaye immigré immigré li mu amee ni mu amee foofu liberté amee ko Arabie Saoudite xoolal seen alal ju bari ji nga xam ne du kenn xamul nu mu toll nga xam ne mën nañ cee dimbali mboolem jullit yi néew doole ah ana luñ def kon yëf yi dafa bañ ca mbañaxaan il faut mu tàmbale ca kaw ñoom ñu jéem a organiser wu ni tubaab bi organiser wu ndax bu fekkee lislaam dañuy waxante dëgg civilisation ci la tàmbalee lépp ci lislaam la tàmbalee bu ñu demee ba ñëpp jiitu leen kay am nañ problème waa ax naa nag sant eh, yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa rek teñaan yàlla mu yemale ko fa dañu fa génn àdduna yàlla eh, xare leen àjjana te bañ amati di kilifa gu baax koo xam ne nekk fii ci Daaru Muxti nekk tamit ku oyof lool ñu ngi koy sant baax di ko gërëm sant sëriñ Bamba Diop mi nga xam ne eh, ku baax la itam di dox lu baax ak sëñ bi ñu àndal ak ñu nekk ci liggéey bi ñëpp ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm ba beneen incha allah.